perhaps. الحمد لله حق حمده الحمد لله على كل حال ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لكاد ni kàddu yi mi ngi ubbi taxawaay yii xidmatul xadim di def kaar waxtu wu ajjuma jotee da ngay gis ni day gën a dox taxawaay yi di gën di rafet Pastef yi gën di dolliku maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax di len ñaanal yalla sun borom mi nga xamni yiw yep ci loxom la dajé mu tëbbatinu kàttanam gi te dooleetu ni ndimbalam di ta yalla may nu cër yu sawar ta yalla may nu xel yu leer ta borom bi mu may nu xol yu nangu bi jahi khadim rasulillah loolu yi ñuy tuddee balaa ak i bokkam yàlla musal nu ci sëñ maa ngi koy xamin kuróbin wa xaw fi najji yàllaahu yàlla nañ ci yàlla musal barakallaahu bu ko defee rek dina am liggéey boo xam ni daanaka ci lañ nekkoon mu nekkoon càkkutéef yi lenn ci mbokki taalib yi nekk ci réew mi ak bitim réew damooy xasida ak sindi gii ñu di ko sàkku ñu leen ci fekk di ci jéem a na bi as tuuti nda waxi Sëñ Tuubaa kenn mënu koo nit boo gisee sarax yi ñu ciy def ba tax ñu bari ni xasida gi ñor na leen jangé nañ ci xam yenn ci yonenti yi ñooy ñaan ak seeni way waye jangé nañ ci xam alquran jangé nañ ci xamit sahaba yi waye jangé nañ ci xam wali yu yalla yi liñ jëfël yalla ba nanu mel nu mel ba tax ku toll ni khadim rasulillah di ak yalla boromam ba noppi di leen ci tudd ñoom te wax ci biir xasida gi ni fama la naa siwaaka amul kenn ko dox sama diggante yow su waxee wax ji ba noppi nag tudd ci keneen sëñ ji bi loolu war nañoo tekk rek seet baat bi jàngataat ko ba xam nu mu doon fama la naa siwaaka wa antar barru yàlla doxaluma kenn sama diggante yow awma kenn ko ma yaakaar sama diggante yow waaye téerewul mu def tawasulaat yii kon dafay mel ni bi présenté xasida gi te bëgg ñu fonk ko ñooñu dañoo ñëw diis ko seen bopp mu présenté waale leen ngeen ñu ñoo war a xam ñooñu ñooy ñan loolu lay doon wala boog bi muy présenté ñooñu pour bëgg ñu xam leen mu présenté waale ci xasida gi ngeen ñoo xam doole xasida gi nu mu toll ndax boo xamee dimension yi ñi mu ci tudd da nga xam dimension ñu dimension xasida gi boo xamee tolluwaayu xasida gi dinga xam doole ñooñee ndax bu dee maa ngi ñaan ci barket kenn ci jëmm yu rëy yooyu wax la mu wax ci moom bés ko ci xasida gi doog a wax waxam yi mu bëgg ini saal du ko xal ban xaaseen ma tawaddiyan ak waxab la naa rusula wa tawfiixa yàlla yooyu muy wax da nga xam ne xasida si ndi di leneen la dëgg la leneen la maa ngi leen di dénk rek sama yéen ñi toog ñëpp tey dénk sama bopp aw yoon ngir dox la ku duxut da ngay wàcc yoon wa aw ñal ku xamul foo jëm rek a fay aw te sëriñ bi nee na loo ci waaxu waaxu la ngay mujjé mooy fuy fii rek naka da tegul ca yoon wa ngi wax ci biir xasida gi baat bu yéeme man kaana yursidu saa xayin wa yuhliku saa kufrin wa yansuru man yaxsaaka yàlla aka jare bàyyi xel bala maa ñëw ci xasida gi jëlal rek sa njiw yi wayuhliku man kaana saa xayin wayuhliku man kaana saa kufrin loolooy wax ja waaye wayansuru man man man kaana ma wayansuru li man yaxsaaka yàllaa ko soxna ba Sëñ Tuubaa dani yàlla day alak ku rew tebew bew bala yàlla bay lu baxay riri sun borom danel ko man kana sa xey yalla day alak ab yefer xam ko yefer ñun kon kin ko tek du mom kep de ka taxaw feen yàlla amut kep ku wedd li yalla digle rek ab yefer nga sun borom ne jamulen ma nga ni man julit la waye sun borom ne la fonkal waxti fonko ko rek dug nga sun borom ne jub la la sante defoo ko ci saa kufrin nga bokk xam nga kon daa jara xàmmee ñoom dañuy jàpp ni rek ku xonq gëmul yàlla gëmul rasulaay mbaa bokkul ci ulool eh, ahlul kitaab yi kooku rek ay yéefar déedéet saa mooy ko weddi li yàlla ni defal leen bokk nga ni ko koo mën a doon dangaa bokk saa kufrin sañ borom dana la alak bala àdduna tukki baat bu jar jàngat la sax buñ ci mënoon yem bañ cee dolli dara nu seet tàmbali sama bopp man miit ak yéen ndigali suñu borom yi est-ce que nangu nañ ko appliquer wala tere suñu borom yi est-ce que nangu nañ koo bay ba bañ bokk ci sa xëyin gaa yu bew yi xam nga bew jàpp ni dara nga wala yoon nga dara wala man nga dara walla am nga kilifa gu nekk sa kanam goo xam ni su ma tooñee mu làq ma kooku mooy ku bew sëñ Tuubaa nee na foo man a aw yàlla dina rax sa dikk dégg ko ko xamni digali sunu borom bi yi mu santane jub ta bay deung su def len nga ngo def may nga ni fene tuddo julit sunu borom tëral juromi waxto mi nga nalu lank ko ko defal ci saa kufrin nga bok de nga ko bopp ma pourtant yaa ngi xas borom ni fowukaay yi nek ci aduna bi bu ko fa dem soo fa tegee sa tànk mbaa yëg nga ni ci yéefar yi nga bokk da ngaa weddi yàlla ni ne defal nga ni ko defuma bàyyil nga ni ko bàyyiwuma mbaa yëg nga ni suñ diggante ñun boo yàlla nee soppante leen nga ne ko noonu dañuy bañante mbaa yëg nga ni nga bokk mbaa yëg ni su yàlla nee bu leen naxante bu leen worante te wax am na feneen fu mu ko waxee de ca mat la bu mat la bu sifaa yi yow ma fas yéenee ndax man seex cuun mii waaw fas yéene lekk alal ndax ko ba yegg saa ko nga bokk waaw yaa yegg nga ni su suñu borom nee na góor ñi jigéen nañu àndi lii nga safaani àndi wa ànd àndi wu neexut mbaa yëg nga ni saa ko nga bokk ci ñu wedd yàlla nga waaw mënoo di dund lii yow tuddal muutu nag wala Assane mbaa Xaadim wala Mohamed waaye bi ñu ko tuddee ba noppi lii yàlla wax yow yaa ngi koy def jàpp ni turwee ndox sa moo ma séparé maa ngi yéefar bi na nga nax nga sa bopp maanaam sang yi sang ñu ngi doon julit mbaam jaare yaa ngi doon yéefar man teg naa saa bët ci xaadim mu doon chrétien xaadim am na ci boo xam ne gisuma ko it waaye gis am na kilifa gu bokk ci nun ak jëmi suñu Tuubaa sant Mbàkke jur doom ju yéefar ci réew Afrique yii te xam naa ko papaam ñëw na ba ci man di ma ñaanloo ci dafa tukki woon takk fa soxna bàyyi soxna sama nag yaay ji rek ca la ko neex fii ci réew mi kilifa sant na fi Mbàkke takk fi soxna bàyyi soxna sañ yóbbu ko ci école labee taxaarim la tudd waaw man kaana yul siru saa xayin man kaana saa xayin wa yuxliku saa kufrin ñaari baat yooyu soxna ma rem Sëñ Tuubaa boros na ko fii ci ñëw dama la bëgg a defal li ñuy wax interdiction yéen jàngkat yi du noonu la waa koy pour nga mën a comprendre waxin jii balaa ma asan kan di dëgg tànkam ci ndigali yàlla yi bañ koo def ba noppi di xas beneen waay sëñ Tuubaa nee na da nga comprendre da nga comprendre mbay nga ni bu suñ borom nee na euh, sanu sangu set farata dafa am ay farata yoo xam ne yàlla ko tuddal boppam nga ne ko jéem ma koo jàng jéem ma koo xam est-ce que boo ko saa kufrin baik nga ni japp su borom bako isa khumtum ila sala fakhsilu wujuhukum waydiyakum diyekum ay alquran la waxtu yalla bi jotee jog len gen jappal ma nga ne ko mënuma ko xawmako ko nga sa sa sa nga bok da nga wara war non sa noonu saa lu matérialiste di tee nga def ko na nga bew saa kufrin lu la sey cër lanklo ba bu yàlla santaane ko def ab yéefar nga ak koo mën a doon yéefar ndi du xeet xol bu nangul ak bu bañ tubaab bu nangul yàlla ab julit la nit ku ñuul africain bu gàntul yàlla ab yéefar la la ngay dàq mu jëm tugal naan yéefar yi te denc ko sew sarondal yow xanaa lu yabaate la nañ wirifee suñu bopp am deet wax kay lii la fi sëñ tuwaat moo ko fi taxoon a yow xam nga mujaddit mooy koo xam ni yoon wi yàlla wax rasulullah ne ko xaasa siraati mustaqim yoon bi moo jub teg sa tànk rasulullah jaraloon ko jël jeesi di daggante bopp ak ñu xonk ña ñam doon dagganteel bopp ñu ñuul ñun ñuul ñu néew lañ ca woon kon ab yéefar mën naa xonk waaye fa mu doon daggee bopp yi ñu ñuul a nga fa woon kon ab yëfar mën naa ñuul moo tax bi Sëñ Tuubaa feeñee fii daje fekk ay africain yu ñuul te mu wax ni man la yàlla tànn ginnaaw rasulillah te wuutu gi ma ko wuutu kontaan na ci ndax jàpp na ni mën naa ko wa bi baqaa yéena bi sara kon bu tëralee xasidaam gii andi ñaari baat yi ab yéefar akub julit ak ku bew wax ni ku gàntu yii yàlla digle ab yéefar nga mbaa dangaa réew te borom ba moo wax ni ci ci ci ci saar bi ni doomu aadama ku gaaw a beew la inal insaan la yasxaa wax kay an rahu astaxna borom bi nee na doomu aadama la yasxaa ku gaaw a beew la sax na ma reew taxamul boppam an rahu astaxna su situation am rek mu wone weneen melokaan wu bukk dëkk win ko xamee wala wan ko yare woon bari na koo xam ni kere ba mu jotee caabi oto la jàpp ni porte bu ne mën na koo fëgg kon te kon toogaayam ba ñàkk a dem ci yenn fréquentation yi daa mu loolu lu mu doxe ji am na koo xam ne premier saleeram am la génn ay bokk buti appartement fas ci yéene fat ku ko neex doxe ca nu ko neex kon ndekete ragal yàlla ga daa mu ko tegoon ci awma innal insana la yatxa an raw astaxna parce que situation changé na suñ tuwaa nag comprendre ko am na xoox koo xam ne ab yaram daa màggagut ñu ne xale bi ko yaru la moo tax benn mag day wax ni ñett wala ñeent découvrir leen yombut yaru teg ndaw lu góor lu yoragut ndaw lu góor lu yoragut bax gum la won bal ba mu yar nga do koo sisé ma la wax la la waxoon de mo tek ca ni fajari leer fajari leer xam tukay man nga julli sa du jot mbaa nga julli fek mu passé la waxoon mu teg ca ni timisi timis junis, yoro montan yoro ay lamp néew fa waxtu man na raw nga ko julli ma waxtu passé nga do ko def Fajar leer timisi nis ak yar ndaw lu góor amagul xaalis loolu la waxon han lo sëñ tuwaa da koy dajale indi ko ci bir xasida gi diglul yooyu kaddu ba ko changé da nga nan waw xana ki diw ma xamul loolu mo lay wax kon nak maa ngi sama bop di leen denk yi sëñ tomb yi ma jot wax bu ñuy warante sëñ tuwaa ko bind bu ñuy naxante sëñ tuwaa ko bind bu ñuy bañante sëñ tuwaa ko bind bu ñuy foñante sëñ tuwaa ko bind waaye da ko recopier ci alxuraan suñu borom ci rasulullah saa su wax ko daal wax ni ngaañ jullit ngaañi mooy teg ci daram dara ak fexe ba yóbbu fitam mhm. ba doon mën a nekk en norme ak jullit du ko def sabi yii wa tax wi fii da ko war a moytu dégg mhm. kon nag nañuy seet noonu waa rijal sadxo waa xidmatul xadim waale sami de nasru sappe sëriñ asan yële ak ak le coranique yi nekk ci barab barab ci barab bi su fekkee kiy wax ak yéen nii mooy seen euh, responsable moral mi ngi partage ak moom kàddoom kàddu muy kàddu yàlla borom tabaraka wa maa ngi leen di seereel fii nii lu lu njub du belajar nit aduna du jariñ nit alakhir lu lu njub la la wax fo meuna wéru ko meuna yaakar ci do meuna ne du la jariñ aduna du la jariñ alakhir te li gëna karaw borom mo wax ni allah yahlamul mufsida min al muslih borom bi mo ni sama bët yu rëy yii yàllaa ko wax de nga xam ne lépp lay détecté soo Mariam yàlla nee na xàmmee naa yàqkat yi bu ñu toogee ci biir defarkat yi loolu loolu loolu tiit borom bi nee na bu ñëpp ak groupé wa toog xàmmee naa yàqkat yi sol garab bu mel ni man ci biir defarkat yi ci biir defarkat yi sol bu buy woyof yi wax loo gëmut yàlla xam na ko def loo gëmut yàlla xam na ko soo gisee toujours may may faral def benn baat na ku lay wax loo xam fii laa koy waxe tey def loo man fii laa leen koy waxee tey loo attan day tax nga am jàmm na ngeen dëggu ma ak yéen na ngeen dëggu ma ak yéen daje yii ci kanam tuuti inna de taamu tas misaalum àdduna la àdduna noonu lay jeexe fu mu jeexe ci yow fekk nekkoo ci digg c'est déjà yow am nga problème tag ndaw day naxe de kattan day naxe de am am day naxe de maa la wax lii bari ko am lu dul jeex te mënu cee naan génn kudd loolu am am di jariñ bari na ko am kattan dafa nga ne làcc tey ña ragal di li yëkëti sax da nga leen sonal ndax da nga dis amna jarak jo xam ne ku ko bëgg yëkëti bu nga nit nit nit nit ragal na jarak ba yagg faatu bayyi ko fi tay ram wu ko tek ma la wax lolu kon il faut ñu def très attention ci defé ni nuna ta dunul nun noko xam ta xamunu ko noko man ta man ko man dafa am benn baat sëñ Xaadim inna allaha laa yahdi kaydal xaa'iniin subhanallah billaay yàlla nee na diglu leen annonce bi texte bi ab workat bàyyi boo jox xaaju guddi ñëpp di nelaw waaye mu bàyyi ba digg bëccëg nit ñi di ses wala mu yoor yooru leen bi ñëpp xëyee mu def ci kër gi du réussir mukk addunaam allahu tabaraka wa taala jalla jalaalu nee na laa yax di duma ma jubal mukk mukk mukk kaydal xaa inin pexe warkat yàlla ko wax de man nag su ko nit waxoon moom ñu mën a sax maanaam seet na nuy lijjantee comme mën a doon nag lay rasulullah bi ci suuf waaye ki ko wax moom da dul nit te loo fi gis mu dëgër moo ko fi def lu yooyu ngeen jox mooma garab yu naat yëpp moo leen fi samp xëy xëy bekkooral leen xoola kooku fa jaaloo xosaan ahwa loo fi gis mu naat suñu borom nee na bàyyi ma ak moom rek liir bu gàtt ma def ko mbopp fa jaaloo xosaan ahwa sa nuqari ko falaa tansa nee na liir leen leçon boobu man yàlla may doxee noonu xam na lu ne day wax ni bu leen bi ma jéem a teg dil borom bi tabaaraka wa taala am na ñu ko essayé waaye wa maa yaxda'uuna illaa anfusahum seen bopp la ñuy teg dil parce que man njabar jàppuma cat jàppuma te mënee suma lëre alxuraan lii ma wax yëpp ay aaya la ca su Baqara bàyyi leen ko xel bala ma dugg ci waxtaan bi toog fii de di firi xasida yi ñëpp fi taso te waxuñu dëgg du jariñ dara te giddi spirituel li tax mu tudd ko mooy li ko yàlla wax loo surul loolu ay nax la te nax moom daa eggul diggante buntu kër ak pot ba koo gàddu bala nga egg fii di ko jafandu mënoo ci moom dara ku ne di tax ñu topp la na nga ko xam damay déglu benn benn benn waxkat bu bu bu dégg wolof sëñ xaalis dafa wax ni borom borom borom may yi borom may yi xam nga ko mooy kan waaw bul wax du yàlla neel yàlla moo tare mooy yi déggoo ma de borom may yi moo tere ko wax kay ginnaaw moo moo borom may yi moo tare mooy kon da nga yëg ni boo nekkee ci may yi rek mu xañ la may yi boo nekkee ci moy yi mu xañ la may yi borom may yi moo tere moy ku mu xañ la may yi waaw ku nekk ci may yi mu jox la may yi waaw noonu la ko waxoon mi ngi ci njub bu ngeen nekkee ci njub bi jëru ngeen di wëri fu may nekk may raw ñëw ci yow waaye li ngeen bañ yëpp mu ngi ci famum bi su ngeen nekkee caaxaan yi fu caaxaan nekk day ñëw ci yow waaw waaw dama lay wax tuuti. <laughs> man man bala maa jooyee jàpp. Mm-hmm. ma nekk ci na fekk ba noppi di kaw. bëccëg laay xëy weeru bëccëg. Mm-hmm. ñëpp na xanaa du asankan mi doon toog fii. wala il asim. yàlla première fois man na ni xanaa kii daa juum. deuxième fois mu ne malaaka yi waaw seet sama waa ji seetlu ngeen ko. troisième mu ni jibril jógal ci kaw annoncé ni ki ka daa mel ni mu nekkee moo ko tey xanaa damaa tappaas ngelaw la ko def wacce ko ci suuf ñepp di la nga torox te gis nga yalla bu la daane faxasu dula la tàggaleeg suuf jël bu yàlla nargan ci suuf faxasu du tax suuf dañ ci yow lo gën di faxasu gën di tax waye bu la aje jarul sangu gëna gën di gën di leer ragal len yàlla maag yéen li la len di wax amul taw ba ci suuf ku meuna a moy yàlla rasulaay di daram mu parce que ñi mul boromam lu lim man lépp def nako ci bàyyi len ko lim bëgg lépp wax nako def len ko wa seytaane bi lu mu jotté yàlla wax na len ko fi ku ko mësa a fekk muy mooy yàlla mom seytaane tourwé ci siiw rek waye dugg na barab sanga auberge naan na sàngara rey na nit nangam yi ñu def ñun defu ko ci benn moom dañuy d'accord maag waa ji rek suñu borom ko féete ma ne mu ne comme nanguloo ma loolu dinaa fexe ba ma ne gars yi lu jaamu jàll ma mooy loolu leen may benn fese bu gàtt parce que am na ci xalif seen yoo xam ne fi jógelee fàtte nañ leen te balxam ba tey kenn fàttiwu ko parce que moo fi jiitu woon yonent yàlla alayhi salaatu kon yàgg na ba tey jii yaa ngi koy joobee waaw moo tax ma lay wax loolu moo fi jiitu woon yonent yàlla ba tey jii dafa mel ni tey la tey histoire ñu koy wax pour wax la dimension te xalif séeréer yi fi nekk nii bari nañ ci ñoo xam ne tey gone yi mujj a judd boo leen ko détecté wul lool lool duñ ko mën a xam kon borom may la woon. Adja su daan waxtaan lu mu néew néew néew. six mille personnes dañ ko wër ay écrivain di bind ñenn ñi arrêté suñ noppee ci saase dañ ko tas ci àdduna bi lam dajeeloon da ca gën a foor ci warukaay mbaam la amoon na ko amoon tur yàlla la yoroon dañ ko sikar ba am ijaaba lu mu ñaan yàlla mu nangu foofu la baax yem foofu la baax yem li ko trompé rek laa leen di wax soo ci nekkee xam ne nii maa ngi ci mu musiba ñaan ak alal moo ko yàqal mu trompe keneen koo xam jigéen la ca boole muy ñett action yi déglu ko bal xam ne naa tur yàlla yoroon lu mu ñaan mu nangu bi yont yàlla Muusaa feeñee commencé woote Égypte ak li ko wër góor ñeeg jigéen ñëpp doo wuy si ko jëm ci yàlla buur ya fa nekkoon notable yi dañu seenewu ci moom ndax suñu wootee mars seen i dut nu génn suñ bëggee ku leen tàccu dut noom ku ko def parce que ñi woo l'islam occupé na leen léegi ñu xëy xëy mer ni mënuñu ñakk ay militant ak militante te góor gi waa jii fi ñëw te amatuñ ko tama bu wootee këram fees foog ñu likkiti ko mu yont yàlla Moussa léegi nag nañ dem ci ñaankat bi fi ne nu ñaanal nu mu takkal nu làmmeñam mbaa mu alagal nu ko ndax balxam lu mu ñaan mu nangu dem ci balxam wax ko ko mun leen kan mu ne ko Moussa mi mun leen kooku lu ma jotee ak moom dëggal googu kàddu day woote ci yàlla may woote ci yàlla kooku kay xanaa sama partenaire la may du sama adversaire ñu ne ko waaw waaye dafa yàq sunu dëkk bi ñu doon topp njëpp toppatunu fréquentation doon amatuñ ko dimbaluñu ci mu gàntal dimbaluñu ci mu gàntal ñetti yoon mu dem ba benn moment ñu xëy xëy xëy mu def kurusam rawlaatam bay génn ci buntu këram maanaam notable dëkk bi préfet bi homme politique yi ku nga doon directeur nangam directeur nangam meer nangam meer nangam ku ne duy na ci or loo xam ne ak jamaa ñoom waree bi ñoo nañ ko nañ xëy këram jox ko ay kado bu leen neexee tudde ko addiye waaye du moom jox ko ko parce que moom nag li muy li muy am ijaaba yëpp amul matériel amul amul alal ni mu taxawee ci buntu néegam taxaw gaa yi nuyoog moom mu xool or yi lii nag ñu ne ko ay kado la yu ñu andil bu ko jàppee dara nag dañu dugg suñu diggante rek sax rek mu xool ko ba noppi ni leen waaye di daa ko Namun wut ndax man sama néegu ñax bii day na ak sama mbaam mi moom li mu ngay góorgóorlu de waaye bakken bu la topp tala ba adduna bu la topp tala ba seytaan bu la topp tala ba soxna bu la yel dimbaliwul Ibrahima Saaxoon newoon na jóge ci montagne jëm ci descente sol dali capp te bàyyi woo ko xel seytaane doxale ginnaaw boobax la ne boo góorgóorlu rek seen digg laal suuf mu gàntal ñu jaar ko ci soxnaam jigéen nga taxaw de comme yàlla nattoo na ko moom alal rek la te bëgg ak takkaay mu téye bàyyi ba ñooñee dem mu ñëw gisanteeg sëriñam ne ko suñu ñàkk gu bari gi daa mel ni kat li nga doon sikkar yàlla nangu na ko nu ko nangoo mu ni ko xéewal gi fi ñëw mënu ko koo takk mënu ma koo denc man ngaa jaay ñoo mën nañoo takk ba dee te koo yor mën koo dimbali génne woon ko mu ne ko dama bëgg nga delloo lii musiba la mu nekk ca di ko lewaaye di ko di ko di ko korom ba jàpp ko sëñ bi te ngaa jiim rek bala xam dem ba yàgg mu ne ko léegi dag may may ma laaj yàlla musiba ngay bëgg am de xam nga ko yàlla baal ku xamul yàlla yi tere waaye xam ne yàlla bëggu ko naan yàlla ma laaj yàlla day wax dellu ginnaaw ah loolu la bëgg de yàlla ne duma ko def mukk nga yàlla li nga waxoon da nga ko def génn ci bu ko yàlla deful ñëpp ko am déet mu ne ma laaj yàlla listixaar ba tey yàlla nangu na négocier mu bàyyi ko mu listixaar malaaka feeñu ko ni ko sa borom nee na bul ci dugg mu bëgg soxna si mu jóg mu ne ko yàlla ne boo mu ko tenga ngaa mu mu li xaar deuxième fois malaka feñ war ko gantal ko ne ko yàlla ne bu ko def mu defaat ko trois fois kon gëmul yàlla suñ borom ti message bi burier réseau bi gisul dara jangon na ni bu mu am mu ko amal def na li sa xaram borom tur yalla nu won ko ne ko d'accordul um. mu ñëw ñetti yoon suñu borom ne ko mako jëmmu laa nag man do fi nek kenn ma kele kele bur yee réseau bi sans lo fanano big mu ne ko ah, big de moom wax dëgg yàlla xawma nelaw ye bari wut xawma choona bi waye big da gisuma dara mu ne ko kon loolu mooy nangu na dëggal jigéen ji waaw ki diine waaw nga def troisième gisoo dara loolu mooy nangu na ah ma daal gisuma dara waaye xaaral ma def quatrième fois def ko suñu borom won ko won ko lëndëm ak ngelaw lu tara tara tara tara tara ma ne ko man daal bi ngelaw li ma gis ak lëndëm gu ni ku kenn du gis sa morom ma ne ko loolu mooy boo ñaanee mu nangu am ah, moo sa alko ma ne kon baax na léegi man ngaa garder liñ la jox te wutal ma tuuti yóbbal ma dem si sama daara jox may ñaani ci mu war mbaamam jëm ci àll ba bàyyi leen ko xel ba mu demee ba jub fi muy ñaane fi mu daan ñaane nga xam ne boo mu aajo ba ko ñor fa dugg lu toll ni sama buntu kër bii ak jàkka ji 17 mètres lëndëm nga mu géntoon moom mu gëlëm moom ñu gëlëmal ko moom balxam gëlëmal mbaam mi mu wër wër wër barab bi gisatu ko mu dem ba génn ko jublu fa mu jóge woon ximeeku mu tonaat jëm ci biir ngëlëm teñam mbaam mi siisu di du dugg mu dóor mbaam mi mbaam mi mu wangeetu ko gis nga boo nekkee ciy wor sa njaboote lay jëkka wor nga naan lu tax léegi soxna si yëlifatuma ko boy bi nangam mais wiru fiir sa ah foofu nga jëm ni mu téye laa bi mbaam mi comme wangeet na ko mu wàcc téere yi daanu mbaam mi ne ko balxaam wax mbaam ak wax mu ne ah bëgg a mu ko bëgg a ci na ragalal yalla sa borom ma nga bay ma ragal ko man <laughs> mu ni waay ne khas set wa ca la ko mbam ni wex tëf mu ni soriñ mbaam ma ko kon legi mi ngi commencé ñak matériel yi mu yoroon boo nekkee ci nafiq bien yi jëk dem bien yi suñ borom du alak nit te joxul ay essai ba pare sonal yalla bu la naree alak déwén ren la lay commencé jox ay essay bo téré yow nga dellu ginaaw bis bo boo amee alal di ñak yor guer di ñak yor njabot di ñak da ngay taxaw ba xam lan mo xew mais dafa continuer mu ne kon na doxal bopam naka la dem ba jup tatu garab gi mu doon toog si la ko suñu malaka rek lamé yu bëcëku ba wacc ba tollu wuum yi nu ko وتبعها دفا توب بكنا موم هاو موم بالهام هاو هو بنوك ريو بيو ملاك ركو كومو ملني خاج بو بو داو با با سون بي افات نامي جين لا ماي وا بالهام لولا دون نيك سايو ني لا ماي ني گندي بوتيكو با تولو وومي ييري هوتيكو gaay yek nim ñaari fan ñewul ci kër gi da febar ñu dem séti ko xom tok mu sansé lol lu xew mu ne ki ngeen ma doon booleel baadoola bi dem boo ko tuddee laa mel nii waaye du ma ko baax xam nga nu ngeen def maa mu ne ko ginnaaw yàqal na ma te mën mu koo jàpp fexe leen ba yàqal ko noonu koy yàqale bu ngeen geeree ak moom mu duma leen moo leen ko wax waaye pour soldaar yi moo saa yi duñu am force mooy loolu leen yàlla dem leen ci seeni jigéen yéen ngeen seet ñu rafet a rafet balaa ma wax lii moom mi nekkoon nitu yàlla démb ngeen seet ca ñu jekk te jox leen alal ban doyal ngeen leen ni nañ nañ nañ nañ nañ attaqué góor ñi te kuñ ci sàkku bul dellu ginnaaw ku ci góor teg loxo bu ko di teggil ku mu sa gis loolu ñoom ñoo di ñoo ni ñi soxna yi xam lu leen di doyee ñii lañ bëgg a daaneel te bu leen songee ak force militaire ñu rey waaye balxam comme borom xam-xam la wóor na ko di ku tooñ yàlla yàlla duma la fexe leen ba soldaar yëpp mooy jank ca defaru ba jek ni dañuy jaay seeni soow ni dañuy jaay seeni tiaf ni dañuy jaay ngato waaw dug ci bi soldat ku nek mu tok ni ko sanu musal bii saf na sukar boo bo beugé sax mu la ray sa yow no tuddu mu jox la turu neex mala diw jël sama numéro parce que lolou lañ ko sant ndax man na fa ñëw ngor mu ne ko yi sun kër bu fa ñëw yow kay wo wo fo ne mu fekk la fa waaye du yombut waaw léegi déplacement yaa ngi am de ka jiiti woon soldaar yi moo yi Samira général bi ndax moo saa yi dañu wuddoon fenn ba duñ mooy yàlla tudd yàlla rek la fi nekk moo dem jàpp ci kenn ku jekk ko fexe ba jàpp ko mu jël loxoom ba ci moosaa ne ko Moussa li ngay tere de moom bari na lool bàyyiloo nga ne sunu yàlla yi bàyyi nañ ko nga bayi non sun sàngara bayi nan ko fanan naan fréquenté ba ko waye fam yi mom fexal ba bu sab khutba jëm rawat nak bi ma téye waaw ni ko bii moom da ngay bayi manda mom ni sa diine ji wala nga bayi manda mom genn ci diine ji senegal bi jëkk wax lo la xalaat leen ci rek moo sax ne kon noonu la mu ne mu ne ko bu ngeen ci duggee alku mu ne ko daal li ma lay wax moom yow toogal ci der bi wax ak gaa yi ma ñëw daal di fa toog moom ci biir néeg bi ñeet ñee nañ leen yàlla rek a gaaw gis nga bañ commencé liggéey ba ba mu wóor ko ni ku góor ki tàbbi na ci jigéen bi la suñ borom andi ngelan ngelaw loo xam ne muy xiin wam wam wam gisoon moom dugg ci biir biir biir soldat yi moo saay gaa yi jóg attaqué leen rey nañ ci ñoom juróom benn junni ci benn journée bi moo sax ñàkk na ci jooju doole. waaw soixante dix mille personnes kon moom alku na al ndax ku yàlla baaxal nga di ko trahir yàlla alag la ba alku na moom al balham parce que alal lañ ko korompo waaye alagaale na waa kër fi yàlla gi parce que fexe na ba foofu jigéen ay jigéenam dugal ci seen biir waa léegi nag noonu. ñun nañu ñu baax ñu rek lañ gëm mais nañ seet suñ suñu bopp ñun ci bëgg alal nañ seet suñ bopp ñun ci iñaanante ak terroriste nañ seet suñu bopp ñun ci suñu diggante soxna yi nu ñu tëddeeg ñoom est-ce que danañ dem ñee day ponkal lan woon yàlla dugg na ci kër yonte yàlla Moussa faagaagal fa soixante-dix mille ci benn waxtu yoo pexam ne balxaama ko pexe boo gisee balxaam suñu borom ne ko du ma la mën a baal waxuma yàqu gi nga yàqu le mais da ngaa yàqal ñeneen kon ku ci pexe ci suñ biir nun looy dugal ci biir keneen pour yàqal ko waxuma sa yàqu bopp waaye ka nga jéem a yàqal suñu borom day boole yàqu kooka sa yàqu yenn la ko ma wax la barke dee mu ne damay dégg benn waaye mu dëgg rek ay dëgg borom dëgg waaye dëgg rek nañ sax ci dëgg loolu benn porte la nañ jub nañ ragal yàlla te nañ ko nangoo jaamu mooy tax bu nu àndee maag yéen lu ma jéem lu man ko ñu ci jub ñëpp ñu ngi dox ku ne sa daaw moo man sa ku ci dëng seeta sa daaw sa ren ni nga arrière bu ko jëñ kenn sëñ Tuubaa nee na kenn deful kenn dara borom Tuubaa ko wax de kenn defulul kenn dara lu waay def sa bopp man amila saalin fa li nafsi ñoom nag bu ñu waxee wala alxuraan lay firi de wala saafa aleyha yàlla ni woobaa rabbuka bi salaamin man du ma tooñ sama jaam ndax maa ko bind dafa am aaya bu wax ne salika bi anna allah lam yakku mu xayran nihmatan anhamaha ala xawmin atay xayru ma bi anfusihim borom bi nee na salika maa ngi leen xamal ni soxna Maram bi anna allah seen yàlla ji moom yàlla kat mooy wax loolu lam yàkk mu xayran nihmatan anhama ku ne teraanga ji ma la defal foo su ma ko yéenee yàq dama ko bëgg a yokk du ma teral sama jaam ba pare di ko toroxal du ma ko may ba noppi di ko xañ lam yàkk mu xayran nihmatan anhama ah ata yu xayr ma benn fi xanaa moom wor ma jox la sama aram nga tiire ma ko yàlla wax loolu jox la sama alal moom mooy nga def nga xëtt ma def ko ah yàlla nee nag man ku ma door ma fay xaw ma nag sawu xët ak kur fañu yàlla bopp doole. bu bëgg a terroriser yàlla day bàyyi ba nga tiir ba pare mun a àndu fop la teg la fa ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ana nadaamatu laa yanfa'u shay'an ba'da xusraani rëccu amul njariñ ci ko perte ba pare ay su ma delluwaatoon di ndaw kañ nga koy doonaat ah sama jaal wii ay su ma amaatoon bëñ kañ koy man yoratooyu bët ba ma ci tol bu doon man puso sax manoon naa koo nas ah c'est de sa taar loolu kay kenn waxatu ko nañ ko bàyyi xel dama laa wax fii ne la bul bëreeg yàlla ndax bu la daanoo faxasul tax nga tàggaleeg suuf ku mu yëkkati nag feek jéemoo koo galgal dootoo laal suuf bun naxante man kenn laa ci seen biir yàlla rek a yàlla rasulullah rasulullah Sëñ Tuubaa mooy Sëñ Tuubaa benn taalibe laa rek ñu ànd te man dama dul fàtte sama cosaan bi bàyyi jógee mbaale ni ñëw fi menn man képp ànd yor as caag su ndaw def ci mbubb suñu kukk awuma dara li fekk man loole maa ngi koy bàyyi xel man garab bu bi safuma kama defoon noona moma def ni te xef ak képpi man na maa delloo ca loola nga japp ni yow li nga ko néewut da ñor yalla ba ngay fonto yalla señ bu doon da ngay jaay ris fi awna la ko yow da nga fen da nga am dara yaay kan tegulen ci deug te bëgg dëgg tey def dëgg te bëgg dëgg tey def dëgg sori baag jege maa yem de fu waaye nekk te nekk ci dëgg dëgg fekk la fa loo jige jige Sëñ Tuubaa ko wax fii te nekkoo ci dëgg da ngay perte rek loolu mooy li wér su may wax ak yéen nag man yëg-yëg laa am waxuma ci ay yii wax kay ëllëg nag soriwut ah nu ko xa sax yonent yàlla soxe bu sob ubbi xarib waa kay yonent yàlla yonent yàlla soriwut de waaw alay sa suq bi xarib nee suba soriwut waxin la daa tudd suba mais mais boo nekkee ci li nga war nekk léeg-léeg ci fekk la wax fii la affaire bi nekk te gis nga tooñ yàlla te tey ko maanaam fitna ji bokkut ak bàkkaar bi fitna yi danga maa tooñ ma fay bokkut ak di ba nga dugg bàmmeel moo tax wayatrukal maxsiyata fi saxaatiha in kaana mutalabisan biha borom bi neena ngeen bayyi chaaxani ci saase su fekkee yéen a ngi ci koo ci jógal jaamu yàlla mu tëdd biir néegam ba fajar ba bët set ni sëñ bi gisuma man nangam laa yax man digle wuma jaamu te tere wuma mooy maa yéen kay ci yam dafa am keneen ku ko annoncé ma jëkk laa gis taxi bi rek nga topp ma man la mi ngi nii liiral bu la neexee defal bu la neexee bàyyi xam naa ne daal yéen a wax ni daqaar du wuum ku ko maccut loolu mooy li fi ne nan góorgóorlu te ngeen fonk jataay yii yow suñu mataar fii ma waxoon kenn ngeen teg ko ci dëgg rek te bu ñu réeroo ci dara taalu bi du wor sëriñam te wor sa sëriñ mooy jàpp ni sëñ bi yëgu ko mbaa bi gisuma te nga bàyyi sëñ bi te dem boo nekkee Touba mel ni waa Touba te boo génnee Touba mel ni ay Kooba sëñ Mor sëñ Touba ma ne su ko ndax bàyyi ma saa ko ko xoon naafiq yaa ngi daw di raam ngir jamono naafiq yaa ngi daw di raam ngir jamono bu ñu demee Touba di nu waa Touba bu ñu ñëwee ci réew mi mel ni kooba mhm. jàngal isa la xool si na amano mhm. sëriñ Touba ma ne su ko nax ma ne su ko war ku tawlu day teex dëgg la su ma amee benn benn benn problème mooy foo jafal ba mu tàkk borom fay ko lu ko gën a metti soxna Marème foo joxal ba mu tàkk borom fay ko ba pare la ko jibat di la xool teew sa yitte mooy defare jëmm defar sa situation bu sensé nga am loo jàpp te koo def ba mu tàkk nga ko doxal te ñëw balaa ñëw fay ko moom moo koy fay de fay kenn du ko fayal ba kañ wax naa leen fii barke Demba Ndiaye sëñ Tuubaa génne ni ci këram. te mooy mooy defar akon bi ngir ñàkk bokk ay position am déet doom yi ku ci ne bi nga fi ne ñu yaay borom jamono am na ñoo keppaarook moom ba ñoo ba kooka jóge fii lépp di dox te ki soon ca moom moo ñëpp te kër gu ngeen dem fekk ko fa xam ngeen ko bari na ci ñoo xam ni bi borom jamono ko bari ñu xam ne bañ dawe tuba fi li ñëw ci man jéem na sax ba takk ni jabar wutal ni bu dañoo koy xey nekk ak leen nekkoon dem seen yoon xam ngeen lu leer nga mat mat ci yalla musal ngay tiru na duma ko lugu moy bon koo xam do ko ba mat la lay ray mbon mbon mat jann la bañ ko lugu rek mat lay dama ne ak mbon mattu mattu njaan la lugg ko mooy bàyyi ko nga lànk ne doo ko bàyyi moo lay rey du répété naa ko wax jaa ngi nañ ne ci dëgg jëlaat naa beneen taxawaay sama diggante yow mii ak jëwriñ yi bu nungu mukk nu war bu leen nungu mukk leen nañ tegu ci dëgg ndax ñi ñëpp dañoo dépendre ci ak fii ba bitim réew boo gisee keroog man leen nit fu aalalam xëy xelam du fanaan fa te sëñ Fall neewoon na dencal ma donc kenn du ma ci rey nit li mu joxe addiya moo ko moom ah sa maam sëñ Aliou Kan ko jox lépp joxe ba pare dem yalwaani lu mu am dunde ndax xam fi jëm kon na ngeen góorgóorlu ci loolu aywa foo taal moon keroog yallaahu bil mustafaa sindiidi yallaahu wa bi xaliilika ibrahima yallaahu continuer jaaroon naa wa bi kalimika muusa saalil qadirin mhm. وبزعيب وإسماعيل يلاو وبسليمان نوح يونس يسع وزكريا يحيى هود يلاو أرون يوسى إلياس وآدم ودا وزيل كبليسا لوت يلاو ويوسف وبإسحاق وغيرهما من الأنبياء والرسل لك يا الله وبالملائكة ترن ثم صفتهم جبريل ثم بميكائيل يا الله وصاحب في إسرافيل عابد أرض والخلائق يزرع إلى الله وبصحابة ثم الأولياء إيمان والعاملين من الأخبار يلاو وبصديق وبالفاروع ثم بزل نورين ثم أبي ستين يلاو بمالك ذي المزايا شافعي أبي عنيفة أمدا ممودي الله باللوي والقلم محفوظ ثم بعلم سيك العزيز وبالكسي الله وبالقرآن وبالتوراة ثم بما داود جاء به وروي الله بلغ صلاتي وتسليمي عليه لو والآل وأصحاب والأزواج الله وأسب لنا علينا ربي عافية وهب لنا الخزى في الدار يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالينا من الغيرات يا الله واسلك بنا نجر الدين واغفنا زللا وسر الناجنا والزيتان يلا وكملا كل ما ننو ونقصد وابلنا كل ما نتار يدا وردنا كل ذي شاب وزر عرن ويسرا كل ذي تأثير يلا طويل لنا عمرنا سيدنا بدنا وهب لنا رسوات توفيق يا الله ودمرا كل أحداء تدير بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكلنا عاصما من كل مالكة <laughs> ونجنا من بلايا دهر يا الله وعافة مع عزة ميان زلزلة شدة والفاخر الله إعانة خلة معازلة هلب وفاقة أتس والجوع الله وفتنة والوباء والأرخ ما أرخ والبرخ ما سرخ والقد الله عرض وبرد وناب الكربة نام dalalatin arjin walam yallaw harin wa bardin wa nahbin kurbatin nikhamin arin wa bardin wa nahbin kurbatin nikhamin tangor wu ray sedd bu ray jafé jafé yu ray mbugal aw nakhar bo xamni day tax nit ci ñu ay dalam genn dekk bu mu dekkon dalalatil arajin walam yalla yalla ma ngi ñaan musal ci reer musal ma ci handicapé musal ma ci mbugalum alaxira yàllaahu yow yàlla waamatin waxada yadallatin ju mënta faju mukk xam ni danaan ni mu juddoo baaxut yàlla musal ma ci ba faaw wal maski wal waxoon naa la keroog bu njëkk boo tooñee yàlla mu wasxu la soppi daw garab mbaaw doj mbaa golo ku ñëwati xam ni foofa nga nekkoon wa ullatin maa junuunin illatin maradin boo demee Makka Safa nit la woon Marwa nit la woon dañ leen a was ko ñu toog fa ñoom ñaar wa woo xam ni day gaañ naan max junoonin ak saddum junne illatin ak jàngoro maradin ak feebar yàlla na ma ci yàlla musal xaadima rasul woppi ngaana ju ànd ak siti ak cër yu dagg di rot yàlla nañ ci yàlla musal sëñ Tuubaa nee na wa min xabiatin dunya summa axiratin mboolem bon boni adduna yi boo ko dajalee benn laa ci àttanul waa kat gi àttanu ko yàlla musal nu ci wa min fudui ma yàllaaw yàllaaw li yées ci àdduna mooy sonn ba noppi te mënoo ko jariñoo kon fuduu yi hima yàlla maa ngi lay ñaan musal ma ci kulli shay'in qadirun wa ala yow ya am kartan yow yalla ya am dole te yaa man koo songu mu daanu te ku la songu nga daan ko asin asim sawabil khariyallah yaay borom aras yaay borom kursiyu bind ñëpp ba noppi dem tok ca kaw ndot ñëpp yow yàlla sun borom maa ngi lay ñaan qalban khasihan rasul lo ñaan xol bu la ragal làmmiñ wu lay tudd tey toroxlu ci ak xam-xam boo xam ne day jariñu tey jariñee waaye bari xam-xam te xam-xam bay di la lor mbaa bari xam-xam te xam-xam bay lore borom tuwaa ne bëgguma boobu wa xamoo duur sax ci xam-xam yi la bokk te ki koy da man lool borom Tuubaa nee na bëgg ko boobu xam-xam boo xam ni damay jëriñ nit ñi mais du ko dóor boobu laa soxla wa tawbatan xubilat ma mitnatin rufiat bàkkaar lu rëy rëy rëy boo ko tuubee te muy dëgg yàlla mën na la ko nangul nañ tuubi suñuy bàkkaar kon ma zawjati salaat bi diin yalla fii laa la waxe woon ñaare soxna ye demoon ca borom Tuubaa ni ko danoo bëgg nga ñaanal nu ndax noo bokk jëkkër ñu juboo sëñ Tuubaa leen ma ñaanal leen ngeen jub moo gën ma ñaanal leen ngeen juboo ma zawjati si yiw sëñ Mataar di la jàppale sa jaamu yàlla di la jàppale ci sa njaboot di la jàppale ci sa bopp borom Tuubaa nee na kuy ñaan nanga ko ñaan ma zawjati déggoo bal xam ma la wax léegi soxnaa ma ko dugal ci lii ak keneen ku moom ba ca firaw na ñoom yàlla na yàlla musal ci soxna su bon ma zawjati waxtu woo amee soxna su bon noonu la muñal day gone waaye su bootee lewu jikko ci nekkoon dañ yaa ngi doog a dugg nag sànn bis bu soxna sa bootee lew womat keneen am na ñetti kël bu ak moom muy ñetti xaj ci génn kër xaw ma foo jëm moom buñ la day woo xale ban toog mu leen seen bàyyi de xam nga lu ma def léegi moom de nangam nangam du nañ yàlla mooy to mooy musal ci soxna soo xamante ni daa saay saay ba noppi bëgg laa terroriser moo ak ay doomam màggatee dut la may ñam dut la jox ndox saa yoo xiifee naa laa nge baa mën a xale joxol seen baay foofu la yem ak yow boo fóotee dana boo tilimee amob saabu sa yére yu dandi yi bul tilimal sama armoire bi lal bi léegi laa ko fi lalkat bul ci toogat loolu yi mujjee ak yow. borom tuwaa nee na kon sawjatin soxna soo xam ne salwat day yiw tamay dimbali bii diini ci diine yàlla yow yàlla. wax ji ku xëy ku nekk dee wax ne yàlla musal la ci nattu àdduna. ñett dafa am waxteef. njogteef ak kooku gaa yi bari tudd naan xaw ma mu tuddati sax moom wa boo ko bëggee teggi na rek neel ku nuy tooñ ku jóg nga ne dañ koy tooñ moytu leen koy sëñ Tuubaa nee na kooku jërta daw xam nga ki jara daw min sari hasidin isa hasada yàlla ko wax ci alxuraan ما زرف من وصر عين يلا وكن مهيسا لنا يلا نعم مسل من سريس عسدين اجي إنيان بجوك jog ngir yakal ma musal ma masarifam min wasar min yàlla yàlla mu la iñaane ba noppi dëkk yow loo dugg mu xam ko foo dëkk mu xam ko bu ngeen ne balay nettalil yow fu mu aw dootoo fa baax masarifam min yàlla moo tax yàlla ne rasulullahi awosu bi rabbil falaq min sari ma xalaq wa min sari xaasiqin sawaq wa min sari nafasaat fil xoqat masarifam min wasar ayni yàlla wa min sari isaaxat jat wu rëy ngi noonu waxtu woo ko dóoree sab noon lu mu la yéenoon mu këpp ci kawam foo tolteel ñaan mu musal la ci ayu gémmiñ na la musal ci ayu bët ñaar yooyu ñoo gën a danseere ki ñuy tooñ mbaa yëg nga ni am na koo xam ne saa yu la ne moo yow lii nu mel booy boo dem ñibbi doo doo fi baax li mukk loo yor yàqu naa yàlla bu mu ne ni sët tët tët tët mii boobu foo ko jële yow demal ñibbi loo def yàqooti nga yow moo tax sëriñ sooy bi daanaan wax di bàyyil dem ca tànt gën faa ràññi ko sol lu ñëpp naan moo fi dàqale ca tànt bi ngay tiitaru tey ngay dee de moo tax boo yoree oto bu rafet def ci sax benn tomb bu gaa yi ne oto bee rafet ne wax bu doon doon tomb bii de affaire am. yàlla xam na ko sëñ sëñ Xaadim booy tabax sa kër peinture bi sax bu mu nuroo def ko bu baay bàyyi faal gaa yi ni affaire bi dafa xaw a jógee. bu mu ne bu ko gomee ba mu ne kàkk bu ko yóbbu ca jumaa ja loo wax def gaa yi tudd ko tam ñu wax mu la tuddee nga yàqu. yonti yàlla bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bi Yusufa nu mu yaxuba kere ba mu yebal doom yi ci dëkk da leen wax ne xaj di kël woon bu leen àndandoo duggandoo ci benn mbedd yonent laa la wax fukki doom ak benn yusufa toog président mu yabal leen nu seeti ko mu leen bu leen duggandoo ci mbedd xaajali koo leen laa tadduxuloo min ab min baabin waahidin wax kay wax kay loolu la ko waxoon ni ngeen àndandoo jiit la mag rak mag jiitu rak topp ci rak topp ci ba ngeen nekk onze fois bu ngeen ko defee ma yàqu ngeen yàqu dan naan jé góor gee jur ñëpp ngeen faatoo noonu nag ma ñàkk man. sa moo tax di moytu baax na boo gisee mag ñi daaw ñu nangu benn oto ñu boole ci yaay ak baay ak i doom ñu ñu tukkee ndox musiba de. booy tukki xaajale sa waa kër ñii jaar fee ñii jaar fee. boo amee nu mu demee ñan des waaye dajale ñëpp. danoo mën a wax te mën a xool bu ñuy wax bu noppi bu ñuy xool danaa xuj moytu leen gaay nan yàlla musal sarifa min ay ci ayu gémmiñ te musal nu ci xar xëy nu ci ayu bët. وصرسين وصر حلقي سهمو يلا ني ويل لكل همسة لمسة لسي جماعة مالا وحددا وصرسين وصر حلقي سهمو مرم بن نينا نينا نين خلو نين ني بانيو ياقلي اك نيغا خاندي تود ني بان ياقلي كين مونتا تي مودو ولين ساوارا وصرسين وصر حلقي سهمو ويل بوغلوم soxna ma ne am na ñoo xam ne seen piis nii musiba mbaba kumba la bu la nee nii yow waaye boo dem ñibbi yow nan yàlla musal ci ab jibar boo xam daa jekku la muy def ak ayu nit mbaa ayu jinne boo xam ne da yàqal nit am na koo xam ne boo xasee jag balaa amati jàmm fu ne dana fa cuub weex lu fab dënk mbaab lam mbaay dàll ngir daaneel la rek moo ko tax a jóg musal nu ci ay jibar musal nu ci ay nit musal nu ci ay jinne fu ngeen demati kooku waxu leen tur yàlla ni leen ay jinne laa yor moo ci laay ñaane daw leen lu ko may mu yàq mu sànk leen bu leen nungu mukk ñu naa leen di borom bi jinne la ndee leen wax borom tur yàlla boobu moo baax sëñ Tuubaa ngi muslu kon ayu nit ayu jinne làmmiñ ak bët ba noppi ni nag maa ngi ñaan yàlla nga may ma xol boo xam ni inni jaxaltuka bayit bii jar naa mokkal ku ñaanati ba noppi wax yàlla mu defal la ko inni jaxaltuka fi daarayni yaasixatin inni jaxaltuka fi daarayni yaasixatin yàlla maa ngi lay ñaan àdduna ak alaxira yow képp laa fi yaakaar buum gu dëgër ma jàpp ci nga xam ne du dagg isnan asilan fa kun ma jaaya aar ma àdduna asinan aar ma alaaxira fa kun mal jaay nekkal sama wéeruwaay yow kese. boo weddee laajal wooy woowu yott yàlla Daawuda ba mu ne yàlla may ma une seconde ma seet ba xam mën naa mënal naa saa bopp dara am déet. borom bi mayoon na Daawuda mu nekk yonent am doole am mbooloo soldaar yu jeex nag amoon na ko.